mais bii mooy wat bii mooy la solution. bii mooy la solution du 31. la solution du 31. la solution du 31. bii mooy la solution du 31 ku bëgg am solution bu leer rek na jël bii. élection yi comme d'habitude comme locales yi yii ñooy raw locales yi. Ah! yii xam nga yii dañuy dañuy ak euh, xol bu ah. bii. dañ ko boolee ak suñu xol bu tàng loolu moo tax foog ñu wonewu ni ñii moom métitile nañu waaw bi bu local bi du dañu leen door ñu sukk benn o bii dinañu gis nga Balla Gaye lu mu def Yékini Balla Gaye lu mu def Yékini noonu lañu leen di def seen kanam bi dinañu ko puudar waaw dinañu leen daaneel ba ñu barongu ba seen kanam waaw. am nga yaakaar am nga yaakaar ah. yaakaar naa. jiboog sa ñaar bureau yi foofu noonu. Fatick waaw Fatick ma de. yow dégg nga local bi wax naa. waaw local bi waxul na ma ñetti bureau yi loolu yëpp laa raflé. waaw waaw si si war na dégg. nee na président la jiitu maire ci laa koy jiitu. waaw. ok maman Ousseynou. waaw Baye merci. jaajëf maa ngi leen ñaan bu leen bàyyi sa loxo. d'accord continuer leen. wan leen di ay citoyen ngeen. doo leen ay rab ay citoyen ngeen. bu ñu bu ñu may bu ñu lee may ni ñuy cër nañu jël la solution ñu chicoté leen ñu may ñu suñu cër. jaajëf nañu leen chicoté avec cette solution. waaw waaw dinañu may suñu cër. ok ku la respecté wul sa feem rek dina la respecté si sa biir feem. mais mais lii may lan mais bii moom mosoo ko indi bii bii mosuma ko gis. bii foofu la ñuy def mooy paaka bu ñuy jëlee di nga nii ci tiir bi pour mun a placer. ok hop hop hop hop ah, la solution dem na. la solution dem na. waaw mooy lu ni kii daal semis mais du semis dafa ñaw ni boobu la dugal fii ñun dañ ko ne exeleng exeleng exeleng jola kasa jola banjaal banjaal waaw pour récolteur bi la bii bii mooy bu récolteur bi waaw bii ah, bu yàmb yi bëree ci kaw yaa ngi koy lebal sa ko saxaar bi ngay. bi yam bi ñemewuñu ko. yam bi yamatu nga jam sa sënd. la bii mooy latinoor. mooy lantinoor lii. lii mooy di def fii. waaw nga mun di la. yàpp loolu moo tax ba ñëw complet ok maman Eugénie. merci ba fan yii. merci waaw kay merci beaucoup. voilà Eugénie sur la scène de l'aérobie internationale